nga ma ci àq di xaar ma baal ko bu ma la ko naree baal yi yal naa torox yow yal na la sama àq dal yow yal na la wut ci àdduna yow yàlla boo ko am yow yow yaa yow yow yaay nit ku bon baadoola bi bi doon yow wóor di ma yàq. waaw man ngay ñaanal ñaan gu bon <laughs> <laughs> billahi billaay mënumaa wax barki si na man maa ngi làmm <laughs> waaw man nga looy wut ci àdduna yàlla moo ko am <laughs> bu dee weeru koor gi ameen nga ma ci àq di xaar ma bàll ko bu ma la ko naree bàll yi yàlla naa torox yow yàlla na la sama àq dal na sama àq dal yow yow looy wut ci àdduna yow yàlla boo ko am yow yow yaa yow yow yaay ku bon